loolu alxubayshi indi na ko ca téere ba tudd albaraka ne ku toog ci barab bu set te laab te wéet jàng yaasin ñeenti yoon yoo xam ne da koy sësale seeni diggante du ca du ko tàqale yenn wax bu ñeenti yoon yi matee mu tudd sàbbaal yi muy wax ñetti yoon mooy subhaanal munaffis an kulli yoon سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تك يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم صل على سيدنا محمد وآله فوف ngay dugale لا ngay لا ساي say aajo ja نيان بو a ñaan boo nee salli ala sayidina muhammadin wa ali mën nga nee na boo ko defee nii yàlla dana faj say aajo boo tax ne xudiyat xaajatu technique sax mu jarrab mooy loolu lu ñu nattu la ay yoon yoon yoon yoon ba mu